dalee nag jàmm jàmmi réew mi la njiitu réew mi ne moom la bëgg mu sax fi te loolee kilifay diine dañ cee ruuc ci waar wu yaatu journal ne fa ne gannaaw Touba ak Tiwaawoon njiitu réew mi di président Bassirou Diomaye Diakhar fay démb moo nga woon ca mosquée omarienne fa la jullee ajuma ci teewaayu xalif ba di Thierno Madani Tall mi ko wax ne njabootu ko Cheikh Oumar Foutiyou Tall gépp bég nañ ca la mu teew ca mosquée omarienne ba ñaanal ko jox ko itam yóbbal président Bassirou Diomaye Diakhar Faye ne xam na bu baax solos kilifa diine yi ci réew mi dina leen gën a wekk gën leen a aar ci bépp boor ne rafetlu na itam xam taxawaayu président Macky Sall ci ëttu kilifa diine yi nekk ci réew mi te loolee dina ko wéyal doore ko ci yeggal lépp liggéeyu pour mosquée bi journal L'As ne président Diomaye Faye kay fi mu teg tànkam moo di kër yi kilifa diine yépp mu dugg fa ndokkeel leen vox populi ne firnde li moo di ba mu jullee démb ajjuma ca mosquée omarienne ba noppi ca la demee ci jàngu bi seeti monseigneur Benjamin Ndiaye ba wax ko ne dina taxaw ca sanctuaire marial bu Popenguine mamatar gi ci l'évidence ne njiitu réew mi di président ak kilifa diine yi nekk ci waa Jamra moo di Charles Michel ma mu dalal ca palais ba njëkke la ci góor jigéen yi ma Matar Gueye ca ne moom Charles Michel na ko biir ne réew mi boroom ñaari tur yi duñ ñeex te loolee te mu leer li lëndëm ba léegi mooy liy tukkee ci rapport yi Le Quotidien ne OFNAC Serigne Bassirou Gueye ma koy jiite dafa mel ni ku ca soppi ko doxalin Mansour Faye mi ngi ciy tudd ne kenn woowu ko kenn convoqué ko te kenn dégluwu ko Mansour yokku ca a ca ne saa président Diomaye Faye moom am na liggéey ndax traitement rapport yi ku nekk ak la nga fésal ak ña ca tudd muy cour des comptes ak junniy milliards yi nu waxoon ca covid 19 ba ba ci rapport bu 2022 bi OFNAC mujjee génne lii quotidien lanceur d'alerte yi itam nañu teey ndax yéene kaay bi ne na képp ku ci waxal nit lu la wóorul yoon dina dal ci sa kaw leneen lu yoon war a lijjanti moo di njëgul luyaas bi nu wàññi woon te ba fii France tribune moo taxit am na ñetti junni ak juróomi ci kaw tali bi bi ci mujj amee ca diggante yamong ak mbajaaneen ga ca Koungheul direct news ne fukk ak ñeenti doomu aadama ñoo ci ñàkk seen bakkan vox populi ne ca ñooña am na ci juróom-ñaar yoo xam ne réewum Ginne la ñu fekk baax ba tax démb lañ leen suul ca Koungheul Susaane El Malick Ndiaye mi jëwriñ ji ñu dénk dem beeg dikk bi nee na li mu gis ci oto yi nekkul yoon te tam nag du luy wey faaw mu dakk te dina ci jël dogal daar daar beneen ministre moo di Cheikh Tidiane Dièye turbine ne mooy jëwriñ ji ñu dénk wàllu ndox meeg assainissement bi démb moo nga woon ca dëkk bu sell ba di Touba ñoñam ba lijjanti ndox maaka cetal gi foofee ca dëkk ba te loolee nee na waxtaan na ceek ñoo xam ne seen xel màcc na jëm ci wàll wi ñi seen xel màcc jëm ci wàllu tasum xibaar ñoo ni këru tasukaayu xibaar yi ñoo ngi sënge muy internet bi di rajo yi ba ci télé yi le soleil national juróomi at a ngi nii ñu nekk ci ay jafe-jafe jafe-jafe mënta weesu li nekk ci xët u njëkk journal bés bi le jour yéenekaay bi ne du lenn lu dul jigéen ñiy xeesal ñi ci jël moo di jigéen yi ne dañuy pikiiru pikiir yoo ne lenn rekk ko tax moo di seen yaram xees te loolee a cancer am benn xale bu ndaw buy nettali sama naataango yi ne biir na ko ne waajuram wu jigéen pikiir yi mu doon jël ngir xees moo ko faat jeneen jàngoro ju jël bakkan moo di insuffisance rénale libération ne ñi ko amee dialyse la ñuy def wàllum dialyse googee nag banditisme dëgg lañ ca gis jëm ci mbirum ger ba mbir ma yóbbu nañ ko ca kanamu procureur góor yu amoon feebaru xel ba wér la l'observateur xëy jox kàddu gi journal Futurs Médias bi ne ca centre Ansoumana Dione ba nekk ca Kaolack lañ doon fajoo Mamadou Diop am xelam moo demoon mu ni bi ko mbir mi dalee ñépp ko beddi woon mu ci yi waaye sant na yàlla ndax bi mu wéree nit ñi jëlaat nañ ko boole ko ci seen bopp moor ñi ngi de moom mi ngi ciy jànkonteeki jafe-jafe ndax ne moom it dafa tàggo woon xelam bi nu ko fajee ba mu wér ba delsi ci njabootam léeg-léeg mu dundi jafe-jafe bi ko gën a metti nee na ab dëkkandoo moo ko ko wax woo ko ba mu wuyu ko mu ni ko dof bi kañ nga wér